sa xol daal neex xanaa dama wàcc dama baaba fii tey dara du fi yomb déedéet barki yàlla wala namoon nga soirée dama namoon soirée baaba baaba li muy way ci xol ambiance ak bàyyi kaat lu mu ambiance ul baaxul noo de maa ngi fi maa xeeboon ah maa waay baba rek nekk mag ju baax nekk suñu papa uuf ñu ñun ñëpp moo tax bu wootee dañ koy wuyu. Oh, yaa ma sonal fu ma dem ba beneen Tubaarikàlla nag naa fii samay mbokk doo nga fi nekk tey damaa daje ki nga xamante ne mooy Thiané sama rakk ki ma bëgg ma daana Thiané lu war a sot jàmm ah xanaa ñëw si rek ak Baba Meng waaw loo jonga maa nii lii lii wuyaay sa bësey sama première gâteau sama papa ne yow nga sama sama anniversaire la 24 octobre la muna ma le 17 dom dama bëgg nga ñëw sajj lu reey ma daga yaay dooma maay dom maay baba amna dom dooma bari nay doom maay baba ma ngi moom liñ bari na de maay baba sama xarit la yow sama la la ko baba maay maay mu ak fi jaaroon ak soirée bi fenn ambiance dañ ma mungol sama anniversaire d'accord daal fii day jot fii tey dañ koy dëpp ba mu mel ne suul ak bëggal tike maa tiito kon boo xappi ba see tuuyu loolu ci Atoua Thiané suuf si Diagne sama doom ji ayca ba tey fii bi day gën a neex xanaa ñu yow leen gunge eh accompagnateur de guerre yéen a encombré yéen a encombré ñoo ñooy waa Petit Mbao yéen a ànd ak Petit Mbao lañ jóge waaw waa Petit Mbao ba fi waaw waaw xanaa ni baabaa ko jar rek ñëw ni mbaa xeeboon. def loo yëf ci. neel fii la bu. neel fii la bu joo. Petit Mbao laa jógee Petit Mbao. Petit Mbao laa jógee Petit Mbao. Petit Mbao moo jógee ba fii. ay waay yii Petit Mbao la jógee ñëw ndax soirée yéen ba ngeen soirée. non Baba sunu xarit la sunu doomu ndey la munuñu bañ a ñëw quoi. ñoo bokk bay, ak baay daanaka li ñuy dund ñoo ko bokk mu bëgg ma allah te ba ma bëggam sa bàyyi wu dara lu war a sa teewaay. waa Tické dañuy sàcc rek waa dañuy sàcc ñëw dooleel ki nga xamante ni lu ¡Gracias! sa teewaay lu doonoon sa teewaay si soirée bi. waaw xanaa bëgg Baba Maguette di ko bëggee rek. loolu moom bëgg Baba ak namu soirée. ak namu soirée waaw. nga jóge ba sëñ Ba ñëw. bàq yéen a mais naa ci rawaay yi. waaw kon naa ci li kon kee. koo fekk bi mu neex ma soxna si nuyu naa la. namu naa la si loo ne. waaw maa xeeboon. non du ma ko mos a xeeb sama mag a woote. ñoo buujoo lii. waa lépp baale yi rek. loolu yi kon kee. boo ñëwee da ngay ya. gis nga baaba rek moo waral lii yow. lu waraloon sa teewaay. dégg ma lu waraloon sa teewaay ci biir. ah baaba daa nekk sama nit nekk sama mag nekk sama xarit su xewlee damaa war a teew. man da ngaa bëgg baaba ba woo ñëwee da ngaa war a ñëw. jaayul ma xool. wuyaay ay. koo mon, dama la fekk sama xarit fekk bi koo xamante daa mën bagaay mbay lu ma xale dañ koy déglu maa ma xool nga bi an la bagaay nuyu na waaw maa ngi lay fay bu baax da balaa la waaw dañu ñëw rek pour sot jàppale suñu frère a bàyyi nga ne xale dañ laa bëgg waaw mais fii la paix maa leen raw kon yaru bi spécial dëgg la ni nga yaroo dëgg la spécial waaw li lépp la waaw ndax bu ma waree sama bisu frère mom. lu ma def rek dama koy xeeb sa teewaay waaw euh, sama teewaay nag ñaar la bi ci njëkk mooy sama diggante ak baaba ndax dafa am fu ñu bokk nekk maak moom ñu fay daja chaque jour benn beneen bi ci des mooy suñu digganteeg waa pikin ndax ñun mënuñu am lépp fii ñu dëkk donc yàlla dogal nag ça fait sept mois ñu ngi toog defuñu dara kon suñu premier événement bu amee dañuy bàyyi lépp ñëw saafonteeg suñuy soppe suñuy xarit suñuy am di jàmm lii moo waral sama teewaay tey yeah. nee naa la El Vision ci la lépp di leeree ndax tubaarikàlla bëri na jala yoo xam ne mburu yu fa la ñuy xolam waaye man sama El Vision gàlla maalaw la fii la mbaxal mi di buujoo am na yu la bëgg a laaj xale yi loo réer bagaay diggante bi feebar bi amee corona bi diiran boobu noonu est-ce que bagaay mi ngi liggéey waaw maa ngi liggéey ndax boobu ba maa ngi studio ndax ku nekk gis na ci corona bi def naa ci ñaari clip ci biir corona bi plus que yeneen affaire yu ma liggéey yoo xam ne ñu ngi ci yoon ñu ngi ñëw donc feebar bi ñëw na mais taxul ñu bàyyeeku ñu ngi ci chaque jour ci liggéey bi. man damay seeju Bakaye Mbaye damay man Malaw Birima Malaw Masa Penda Dior yaa ngi dégg yaayu Vandam bokkum yaayu Kunta Kinte yaa ngi koy dégg jumelu Marimar maamu Lis Clarita damay jaagu ñëw ba ci yow seet si la ne xool ci lan nga nekk yëngal fii day neex tey tey fii artiste yi ci

lan ma da nga si soirée yow. moo fi moo fi ne. moo ko Babou moo ah, Dollar xam na. ah Mbaye Dollar ko nga ne Babou fi ne. Mbaye Dollar sama xarit moom xam na ni. xale bee fi ne. yaa wax lii ci télé bi. barke borom Touba moo fi ne. maa ngi ne El Vision secret bari fi lay feeñee. moom Dollar xam na xam na man xam na ne man. Ah, at par liggéey nañu ma ak moom maa ñoom. lu waral sa teewaay. mais xale bi dama bokk ci Mbaytala Mbaytala fi la bokk. moo tax nga jaay sa mat laa. waaw laa rek ñëw liggéey mais yow mais yow tubaarkaal liggéey rafet na de. man moom yàlla def na ni. yaa ngi ñamax ñamax fi mu man damay ñamax ñame ndax samay famille ñoom sponsorisé Aziz. faaw ma ñamax ñame man la yaay Vanda mbokkum yaay Kunta Kinte. Jumelu Marimar maam Lis Kalanta foo ne. sëñ bi naa def. waaw ah, maa ngi fi. daa ah, xeeboo li nga sukkoor neex na France am na. li nga ñàkk mbaa xeeboo. waaye bilaay fecc rek ndax baaba jar na ko moom. sax gis naa la ngay ah. waaye xam nga tamit ni ko bàyyi ñëpp ne carrément yow laa tuddee amoo fayam te baaw dafa nekk Baye Fall barki Seera Fall mun naa waaye nag teg si barki Seera Fall maa nag sama sama nijaay Pa Modou Ndiaye rakk Mbaye si Ndiaye mel na soirée jekk ba karayu mabbu ñun ñëpp duggandoo après ñu tabaxaat ñu Mbaye si ana ci loon sant yàlla ak sëñ Touba maa xeeboo sa trois na si la bokk sa trois xanaa man koy tuddi ko jëmee te ñu doon doomu géwal yaayu Van Damme nijaayee yaay. maay yaayu Van Damme film. man de maay yaayu Hercule. moo tax si film yi yaa def nii. moo ma jaaxal na sekk ma sa mbir saaxe nga lambay. war na sa teewaay ci biir xéwal. bokk si géew gi te naan si njàq sa. Oh god. ni ku nekk la nga judd te ñu boo ko jóg ñu ñëwandoo sa baaba fa ma bokkee. yow gannaaw sonal nga ma de. yow gannaaw paar. baba ñu bokk ben mam xali gay mi taxaw di mbay dogo di sama dom bàjjen mbay si di sama domi bay sek ma sa mbay nga lambay la bok sama dom di di dogo bi moo tax ma jëmmal ko niko bu ragal dara sa papa ngi sa kan àndandoo soirée ba nga melni kon tam xarit ko ma sama xarit bi yow lan nga may ah law be waaw yow noo dundee soirée bi. soirée neex na rek di sant yàlla rek. ko Pikine waaw borom bis kon mënuñoo baax a bañ a ñun amuñu lu lu Pikine dañ koy jàppale te Pikine a tax incha kon noonu nga ko kon noonu nga ko dundee. waaw kontaan kontaan.